mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñi seetaan ci Sénégo ci li nga xam ne moo soxal màggalub atum 2022 alhamdulilahi rabi alamin gannaaw bi ñu yàlla mayee ñu fekkee ko ñu jeexal ko ci alhamdulilahi rabi alamin gannaaw tamit ci alxames bi moom la ñuy màggal bés bu tedd bi muy bésub Serigne Touba waaye tey ñu ngi jàkkaarloo ko ak imam Cheikh Sall moom mooy Euh, président des imams et oulémas de Touba maanaam mbooleem ñi nga xam ne rek ñoom ñooy imam yeeg ouléma ñoo bokk a euh, benn mbootaay te moom mooy seen njiit imam euh, gannaaw bi ñu la ziyaara ba noppi nuyu la jox la sa wàccuwaay ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ku mbokk ñu seetaan ci Sénégal. alhamdulilah ala man la nabiya baada gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Euh, Pam Magan ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu équipe bu Sénégal bi yëpp mhm. euh, di nuyu directeur général ba ci technicien yi di rafetlu liggéey bi ñuy def ci Sénégal mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne mhm. yàgg naa ko wax ne sud bi yàlla na dem ba mel ni Al Jazeera wala BBC lépp détermination ak engagement moo koy joxe. jërëjëf imam li ñuy waxtaanee rek mooy bés bu tedd bi euh, ci màggalu Touba màggal gi sëñ bi moo ko digle woon moo ko santaane woon moo ko ñaanoon tamit euh, suñu borom ba li ni mel tey euh, màgg lool ba yaatu lool alors tey li ñuy li ñuy njàngale rek mooy bésu màggal gi am na ban waxtu mooy màggal gi nee nañu yoor yoor bi la ci diggante boobu noonu lan mooy wareefu bépp euh, mbokku taalibe bu ñëw ci Touba wala boog nga nekk sa kër fa nga nekk di màggale solo bi ak naka lañu si war a jëfee en tant que taalibe. Mhm. jërëjëf Mame Maguette ñu bari bari dañuy laajte euh, li ñuy màggal li ci am solo rek mooy bis bi bis bi mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu nekk muy weeru safar safar buñ ko waxee mooy weer wi ñuy weeru jullit ñi. Eh, boo demee ci mbindum sëñ bi da ngay dégg mu ne xarajtu yow ma sabti saamina achar mm-hmm. li xidmati li muxtaar yi fi chanri safar mm-hmm. maa ngi génn ci bisub samedi mm-hmm. fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mooy weer yi loolu tukki bi la mooy bi muy tukki di génn ci Mbàkke Baari Jolof muy dëkk bi nekk ci wetu Daara Jolof boobu mooy biñ ko indilee convocation yu bari yi ba mu war a wuy ji biro Ndar loolu la noté foofu loolu mooy départ ba dem ndar wuy ji foofu def fa ay quelque un mois et quelque doog fa jugee ñu jugal ko ci gaal mu dem dakaar def fa trois jours ñu doog ko génnee Dakar. kon du dix-huit safar boobu lañ ko yóbbu Gabon. déet fukki fan yi déedéet su ko defee nag bu ñu wootee màggal gi mooy bi mu demee ba dellu si. am na juróom-ñetti at yu manqué xam nga. 1902. Mhm. Mhm. bi mu wàccee wax Moussa Seri nag bis boobu nag lay dem na ba dellu si. Mhm. Eh, yàlla may ko li mu bëggoon. mu ne damay sant sama borom looloo tax bi mu ñibbisee mu bind ni afawtu hmm. anil aada yu turan jéggal naa mbooleem noonu yi nga xam ne ñoom laa àndaloon ñu may tuumaal te tuuma liñ ma doon teg gisuñu ko bi mu dellusee ne kon bis bi dama woote bisub cant bisub dellu ci sama borom ci li nga xam ne may na ma ko hmm. yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin iram jamial wara hmm. yow yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal mbooleem mbindeef fii nga xam ne bàyyiwul julit bàyyiwul chrétien bàyyiwul kenn ku mën ji nee na yow yàlla jéggal ko bis boobu nag la woote màggal gi dañ ko daan defee njaareem nekkutoon Touba Jurbel euh, lañ ko doon defee xam nga tey bi ñu ko jëlee ci yeen Jolof yóbbu ko Jurbel am na fa 15 ans mm. après mu doog a dellu ci boromam mm. ci biir 15 ans yooyu ci lañ doon def màggal gi dem nañ ba mu yàgg ñu arrêté woon ko mm. demaat ba mu yàgg ñu commencé waat ko waaye nañ ko doon defee njaareem tey ci jamono boobu fu waay mën di nekk nga màggalee fa fu waay mën di nekk nga màggale fa ndax alxuraan dafa wax ne inna ardi waa champs mu ne sama alxuraan ji sama suuf bi daa yaatu nee na fu dëkk baax na looloo tax àdduna nekk fii naan man fii laa dëkk fee laa dëkk amul solo eh, foo dëkk ngay limi gox yàlla nee na maa moom suuf bi foo mën a dëkk baax na foo dëkk rek yaa ngi dëkk suñu borom kon nag ci zone bi noor bi laa dëkk ak est bi laa dëkk amul solo léegi nag mu ne na ngeen ma sant la ci bis boobu ñu koy sant eh, màggalee njaareem ba mu yàgg eh, première xalifa sëñ Touba mooy sëñ Mamadou Moustapha bi mu fi jugee Cheikh Mouhamadou Fadal moo nekk deuxième xalifa sëñ Touba moom moo jëlee can màggal gi njaareem indi ko Touba loolu moo waral ñuy màggal Touba. Hmm. alors ci waxtu boobu noonu lan moo war bépp mbokku taalibe wala boog bépp doomu jullit ak foo nekk rawatina ñi ñëw ci Touba ndaxte am na ñoo xam dañu jàpp ne waxtu boobu rek ca màggal gi commencé ca la ca la ca la lekk gi war a commencé ca la mbégte bi war a commencé ca nit ñi di war a foo ca la nit ñi war a sañse da ngay gis heure boobu nit ñi sañse commencé jaabante <laughs> léegi nag bis bi mooy fukki fan ak juróom-ñett loolu suba la mooy bis màggal bisu màggal gi ne bu ma doon wax tey dugg si na parce que bu fekkee ci ñun la bu 19 heures jotee muy timis jàppal ne yaa ngi ci bis bu bees comme tey ñu ngi ci mercredi tey bu timis jotee jàppal ne jeudi commencé na. daanaka ñun fi ñuy waxee nii. waaw màggal gi tàmbali. màggal gi door na su ko defee du ay bëccëg la ak takkusaan la déedéet ci bis bi la ñu wax. bis bi nag door na heure bii may wax ak yow boo amoon say gileem. Hmm. rey ko boo amoon say nag rey ko. Hmm. li ñu ci war a def. Hmm. mooy nga wàccee ci kaamil alxuraan ak koo mën a doon. loolu ñaan waaw soo ko mënee def loolu digle woon boo wàccee kaamil ba pare loolu fu lis bisu lislaam dañ ko fa war a def jàng xasiida wëlbatiku def ay salaatu ala nabi ay istixfaar loolu delluwaat ci suñ borom la soo jugee ci loolu nag la ca toppaat mooy bernde boo jàngee nag jaamu yàlla julli tudd suñ borom ba màndi nag ñu war a laa rayal giléem yeeg nag yéen nga war a lekk ba suur naan ba màndi moo tax mu ne ginaar ba ci giléem bañ koy doog a door gis ginaar ba ci gileem condition yi métti lañ doon defee màggal Touba ci njaareem bu nit ñi daan màggal si ku ci nekk dangay ñëw di indaale sa mat ki indaale bisaab xam nga nawet bi rek ki indaale gerte ki indaale cere dugub yooyu lañ daan dajale di ko lekk ci màggal gi booba yi xewagut dañ daan wootee màggal ba pare pour nga am loo lekk mu nekk ndox moo naan waxaale wuñ ko léegi nag alhamdulilah su ko defee nag mu ne ginaar ba ci gileem lu ci waaye def ren bu déwénee yàlla yokk ko loolu moo waral li tey ki nekkul murit comme ni ñuy wax murit yi taalibe yi Euh, taalibe murit parce que ñëpp ji daanaka mën nañ wax ne murit parce que murit gi booy xool benn làkk la rek ñëpp ay jul lañu waaye ki nga xamante ni yaa ngi nekk laayeen bi kii nekk euh, ca Tiwaawan ñii nekk ñaseen ñoom i tamit li nga xam ne mooy fu murit bi rek moo war ñooñu. waaw xam nga tey euh, bis bu baax bis bu baax la. màggalu Touba ñëpp ciy ñëw gàmmu Tiwaawan ñëpp ci ñëw Sénégal dañoo war a bàyyi polémique yi ñuy def naan diw murid la tijaan xaadir laay ñeseen di di dugg yooyu Serigne Touba ak Serigne Hadj Malick xamee wuñ woon loolu Serigne Touba daa wax ci Masaalikul Jinaan ne bu fekkente ne da nga nekk murid nee na na nga xam ne tijaan bi xaadir bi laayeen bi ak ku mën a doon ci lislaam la nekk ci alxuraan la nekk sunna la topp daanne bu ko sabootee bu bul ko wax wax ju ñaaw daan nag ñoom wird ya ñu yor ci yàlla ci yonent bi alayhi salaatu salaam la ñuy jokk di def lu baax ñoo bokk benn alxuraan bi loolu boo ko jàngee ci masaalik doo nekk di laaj sax diw loo doon ñun Sénégal ñoo des ci koo toog rek naan ko loo doon kon kon ça veut que màggal gi li li la war yow moo ma war moo war keneen moo war keneen kër gi nga gis nii am na ay ñu fi nekk ñoo xam ne du ñu ay musulman mm. samay xarit lañ sañ màggal dañuy ñëw fii xam nga ki nga xam ne du jullit catholique la tey am na ñoo xam ne ñu ngi ci waañ ba am na ñoo xam ne dem nañ jumaa ji ziyaare ji buñ ñëwee dañuy dem jumaa ji visite am naa koo xam ne nii laa bi may toog yow ci buntu ko sëñ Abdou Karim eh, directeur cabinet moo ma doon woo ne ma dañoo bëggoon a ñëw Touba ma ne leen heure bii dafa nekk loo xam ne lu xat la muy Pierre Goudiaby Atepa xam nga xam nga du jullit waaw chef de cabinet moo ma doon woo ma ne soo leen bëggee ziyaare si dangeen ngeen ko une semaine avant ñu programmé ko wax ko sëñ bi su ko defee mu doog a ñëw mais ñaari fan ñetti fan ngeen ne da ngeen nii te xam nga Pierre moom liggéeykat la boo xam ne macha allah pour man la ne ne Sénégal benn bopp la bu murid yëpp xewle ñëpp dem bu tiyaan yëpp xewle ñëpp dem sëñ Touba daa nekkoon fii di bay waaram Seydi Hadji Malick nekk fii di bay waaram ab tool nag bu fekkente ni kii mooy bay kële bàyyi tool bi day booy tey bu fekkoon teewaawoon kenn nekku fa du gent Touba gi bu sëñ Touba nekkutoon nu mu mel loolu nag la nit ñi war a xam xam ne ñun ñëpp ay jullit lañ moo war a tey tey màggal gi kenn ku ci nekk bay ci sa waar loo mën a am indi ñu maase jàngal xuraan jàng xasida sant le sëñ Tuubaa ci bisam bi